bisimillahi rahmanirahim ahousubillahi mina sheytaan rajim bisimillahi rahmanirahim waan sulaara xalxa war a saaya wa jinn wa seytaan wa bala ma balaa i maha amradi wa biri daatan haadulil ahradi mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen nuyu baax te di leen ziar di jiital ci nuyoo bi ak siyaar yi Serigne Mountakha Mbacké di ñaan suñu boroom yàggal ko fi loolu te wéral ko di siyaar baax tey ñaanal Serigne Cheikh Jëmb Fall di ñaan suñu borom yàggal ko loolu te wéral ko waaye di siyaar mboolem njabootu Serigne Touba yëpp wala mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp mboolem Cheikh Serigne Touba yëpp waaye mboolem Cheikh maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp mbokk yi ñu ngi leen di nuyoo fii ci Mbacke Paaleen fii ci kër Serigne euh, Cheikh Jëmb Fall waaye ñu toog ak kenn ci njaboot gi kenn ci ñi nga xamante ni seen nit yëpp dañ koo jëmale ci Serigne bi bis bu ne nga gis leen ci keppaaruk sëriñ bi ñu ci yëngatu yëngatu bu am solo tey ma dalal kenn ci sikarkat yi xam ngeen ne émission bii nga xamante ni tey moom lañ fas yéene def tey fii ci Mbacke muy émission Zikrullah émission laa na ngeen di ko am euh, jeudi bu jot euh, bu vingt jotee di ko ànd ak seen mbokkum ab Ablaye Ndaw euh, tey nag ma ñëw fii nag tey ci Mbàkke nag ngir fas yéene leen wanale koo xamante ni miin nañ ko lool ci yëngatoom ci yoonu kër maam Cheikh Ibrahima Fall wi ci turu yàlla wi waaye tamit ci liggéey bi ndax liggéey bi daanaka sax turu yàlla wi. ci lay liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall waaye sëñ Bass Niass mii ma dendal tey ku ko ku ko gis xàmmee ko baax a baax ci euh, kër maam Cheikh Ibrahima Fall buntu kër yëpp nag rawatina kër Serigne Cheikh Fall jëmbu gii nga xamante ni tey fi lañ nekk nii tey ji kon ñu ngi nuyuwaat baax tey siyaar mbooleem rek ku ñuy topp ci réew mi ak ci bitim réew ci émission bii nga xamante moom ngeen baaxoo topp saa yu waxtu yu jotee tey nag ma dalal mbokkum taalibe moo xam ne xam naa dañ koy bàyyi mu daal di ubbi nuyoo nuyoo boo xam ne dafay nekkaale nuyoo boo xam ne nit ñi danañ ko miinaale bu baax a baax a baax ndax sëñ bas Niass ku ko dégg xam ko ci turu yàlla wi yaakaar naa ne bokk na ci ñi ko njëkk a def bokk na ci ñi ko njëkk def te ñu ci bëree bëree tamit ay ay daajam ay eeram la ñuy roy ba léegi nii kon sëñ Bass lañ dalal tey jii xam naa dañ koy wax naan ko saxaar bu jubee euh, gaar day korne mm-hmm. sëñ Bass ginnaaw boo nuyoog mbokk yi ñuy seetaan ak ñi lay safoo ci réew mi ak ci bitim réew euh, ñu jox la kàddu yi rek nga nuyoog ñoom incha allah rabbi mm-hmm. auzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaan rahim barki maam Cheikh Ibrahima Fall ki talibe ñi nuyu baax tey siyaare baax itam li ngi jiital ci noo beeg siyaar bi nag suñu Cheikh Fall jëmb mi fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall te ñaan suñu borom yàlla na ko gën a yàggal te wéral ko naal yim naal lépp ngi liggéeyal ko maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla na ko def nu ngi ko soobee te ñaan ko ak moom maa ngi sàkku mbégte maam Cheikh Fall ci moom baax di ñaal sunu borom yalla nako gëna yagal a te wéral ko moom itam ba dem bëggal bëgg a liggéeyal sëñ mu def ko nim mu ko soobee tànn ko murid yëpp di siaré bax baax mbacke Fall mi sëñ Ngondam mi suñu bund ci yoon wi ñaan suñu borom yalla nako gëna yagal mom ta saxal ko itam dëgëral ko katnal ko ba lim bëggal bëgg a bi lepp mu def ko nim ko sobe barakati mam Serigne Fall ba mooy dina di ko nuyu serigne bu bax seigne Cheikh Ndigal Fall mu sëñ Cheikh Baye Gour na lol ñu ngi siyaare bax seigne mam Cheikh Fall mom Cheikh serif Assane mom mam senay Fall mi nga xamni moy jurni jur daayira bi ñuy wax xidmatu mam senay Fall te la tuddu ko teel yëpp tama yor kàddoom ma ngi ko nuyu baax te nuyoo bëpp ci loxom ngir mu daj ko yàlla yépp mm-hmm. di en siyaare bu baax mm-hmm. tey nuyoo baax itam ci turu serigne bi mm-hmm. ndax jotaay ab tuddu yalla mom bu nu ko defee waxtu wi fokk turu serigne mam Cheikh Fall ci jitu ngir li serigne bi jitu sunu ci suñu digënté tay itam muy jital gu nu neex itam te lepp nak ñaan na di en siyaare baax itam ci li ngeen di dox ci ndax yow moom koo xam ne fa nga bokk xam ne sa alal la loo war a saytu la jubloo ci tam lu leeral ko ak leeral itam fa taxawaay bi sëñ bi toll kon nag ñu ngi nuyu mboolem àdduna mboolem ku ñu seraan rek nga ak ñu déglu ñu ngi am cofeel ci yow te di nuyu baax te deen siyaare baax itam te ñaan ci barke barkab sëriñ bi doolay maam Cheikh yàlla nañ ci niñ ci tàmbali yëpp am lu bëgg sëriñ bi ba fañ koy àggalee yàlla buñ ci dëppook mukk buñ jóg mukk itam ak lu neexu sëriñ bi lépp na tegu lu neex sëriñ bi barke maam Cheikh Rahim Fall ba mu diina jërëjëf jërëjëf sëñ Bass euh, <coughs> yaa ngi tudd léegi sëñ maam Cheikh Fall mm-hmm. mm-hmm. xam ne mooy moo jiitee daayira bi nga xamante ni mooy tudd yàlla yàlla yëpp waaw ci seen taxawaay bu am solo daayira bu am solo nga mm-hmm. xamante ni seen jébbale rek daanaka sëñ Cheikh Jëm wax ne daayira bu ne gis naa ko waaye daayira tuddkat yàlla yi moom tey laa koy tey laa koy dégg ah, yooyu nga nekk ci jëwriñ nekk ci ñi nga xamante ni tamit ñoo ko jiitee xam naa bala ñuy tàmbali tey émission bi zikr laa la sikar si da cee war a saf waaye nag ku toog ak bas te xam sikar dund ak ñenn ci mag ñi daanaka eh, dañ koy def nii rek léeg-léeg ñu laal ci sikar si léeg-léeg ñu ci waxtaan bi comme minute yi bëriwul sëñ bas boo ñu doon wax tey kan mooy sëñ bas waaye bala ñoo tàmbalee loolu sëñ bas faaw nag ñi ñuy seetaan xamaguñ sëñ bas mooy kan eh, kàddu goo xamante ni rek tur yàlla lay doon wala lu mën a doon nag su ko defee ñu mën koo nuyoo ñi ñuy seetaan barke maam Cheikh barke sëñ Mbacke Fam sëñ Ngonde لا إله إلا الله فال لا إله إلا الله لا إله إلا الله فال مصطفى لا إله إلا الله لا إله إلا الله فال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 addi maam Cheikh Fall jërëjëf sëñ Bass macha allah ci turu yàlla am solo woowu. yaakaar naa ne miin ngeen baat bi bu baax a baax a baax ku ko dégg rek xam ne. sëñ Bass Niass moo toog nii. ci ay ay ay ay yu yàgg yoo xamante daa nga ko dégg. Ah, ci turu yàlla wi mu nekk lu neex lu am solo. tey xale yu bëree bëri tey. Mm. suñ demee tey bay bay dund sikar tey. Mm. yàlla ak sëñ bas Niass mii la buñ demee ba yenn daaj yi. Mm. yenn air ñu koy am sëñ Bass Niass mii la. kon di la gën a ñaanal baax rek. nga alhamdulilah amiin barke maam Cheikh waaye sëñ Bass ñu tàmbali waxtaan bi rek. bisimilah sëñ Bass ak turu yàlla wi sëñ Bass kañ la dooroon turu yàlla wi. jërëjëf Ndaw turu yàlla nag mën nañ ne danoo xàmme rek na ci yàlla dafa dogal noonu bi nga xamee ne itam xam nañ dara ci suñu bopp bay tànn wasi la wax ne ñu war mañ war a àndal yàlla dogal na sunu ngone ñu ko defee ci kër sëñ Cheikh Fall jëmb gii nga yox daanaka lépp sunu sunu ndaw fa la foofu lañ ko jaarale waaye itam ku ñu wax sëñ Mbacke Fall moom sëñ Ngunda moom sëñ Mbacke Fall moom maam Serigne Fall mooy suñ bunt ci yoon wi diir bi ñuy jublu ci moom nag mhm. fekk nañu gën a doon ay ndaw mhm. waaye dañ faa fekk itam tur yàlla sax fa mhm. ndax moom ci jëm boppam sëñ Saal Baab góor ñoo ko yar muy doomam mu yar ko itam tur yàlla sax foofa ñu bëri xam xam tur yàlla kër sëñ Saal Baab góor ñu xamee ñu fekk fa tur yàlla nag na ci di ca nab nabi ci jëmmi bëgg ak nab nabi gi nag ca lañ nekkoon newoon ca nag waaye boobu itam mhm. lañ ci yóbbu weesul lu dañ ko fekk ci kër sëñ bi mhm. muy lu xew ci ay daayira rek ñu mhm. bokki daayira eh, ne ca di ca nab nabi am ca bëgg nag ak bëgg lool ndax dafay tolloog ne sëriñ bi nga xam ne moom lañ def muy suñ bunt itam tur yàlla lay dund lu xam ne ci lañ ko xam boo ko fekkee muy toog ak mu tëdd ci am foo ko fekk la muy wax mooy laa ilaaha illa rek loolu lay dund te dañuy wax ne mahabba mooy jiitu ci sëriñ da nga koy bëgg da koy bëgg te koo bëgg roy ko bëgg roy waaye suñu gëm Cheikh Ibra Fall te moo ñu yóbbu ci moom mhm. ndax bokk na suñu jaayante dañoo dénk suñu bopp Cheikh Ibra Fall te jaare ko ci moom mhm. te ko xam Cheikh Ibra Fall ko xam ko ak tur yàlla itam loola moon ci yóbbu woon yàlla dafa ñu tawféex nag mhm. ñu jamonoñ ceeg ku ñuy wax Baye Serigne Fall nag Baye Mout Dieng Baye Maxet Badiane ñëpp jamonoñ teeg ñoom bokk ak ñoom genn kër gi bëgg tur wi loolu nag nekk ci ci nab nabi ak di ci waxtaan ak ñoom fi ma xam samay wax ci ku ma gën a taxool mm. mooy bàyyi sëriñ ndax war na ma lu ne ci tur yàlla moom war na ma ci lu ne wax dëgg yàlla lu ne war ma ko ci lu ne war na ma ko ci ah, eh, sëñ Bass mm-hmm. dangaa dangaa dangaa dangaa ñëw mm-hmm. fekk turu yàlla yi ci kër gi ci kër gi waaw nga ne ci di ci ñam ñabi ba mm-hmm. yàlla dogal nga koy def eh, mu mel ne danga koo kon maanaam danga koo màggaale mu ko màggaale waaw màggaale waaye jamono bi nga koy màggaale turu yàlla wi ndax da ko daan maanaam da nga ko dafa amoon koo daan roy ci jamono yooya. Mhm. wala yow yaa amoon sa daaju bopp yoo daan def. wala kan kan moo la bëggloo turu wi ci jamono booba kan moo nekkoon sa kanam koo xam ne moom nga tegoon sa kanam. mooy Baye Serigne ma lay wax. mooy Baye Serigne Fall. mooy ma lay wax moom laa xem moom lool ci yàlla. Mhm. bëgg ko ci loolu waaye ci biir euh, xemem gi. Mhm. mosuma ñàkk roy kenn ku ma fekk ngay tudd yàlla. ndax dafa fekk na booba sama baat bëri na air yu man ma da ko tokante waaye jëmmi nak top ci nit ba jëlee ci air mom mhm. su yoo sa bàyyi sëriñ mosuma topp ci ginaaw kenn mhm. kuma ci jëleb air waye boba mhm. timit keur sëñ Cheikh Fall dafa yàggam ay daayira daayira ni joge fune fune ne fu sarakat di fa jógee fu ne air di fa jógee xam nga yoy jamono day air yoo xam ne boo xasee génn da koy man rek daal koy mokk la du pour sax da nga xam sax ko ko ko moom bëgg trouver rek mo la ci yóbbu nga diko def waye ba ru eh, eh, airu airu si kar da na ko jëlee ci airu njang ci airu njang airu njang ndax eh, boba Abdoulaye Diouf jànkat ñu ngi gis daan na jëlé ci mu ci borom lu yag yag yag hmm. yag yaay jamono eeru jangi mi eeru jangi mi jànqataay dama ko dama ko dama ko def ci karman lolou xana xanaa dégg si kar moo koy waaw lolou dégg ak ak dégg ci kar la doon ndax bana eer yi bëri ma gone eer nga diko gis sax ci eer eer xataay la hmm. lo ci dégg rek daanaka ci jàng laa ko jëlé ci yu bëri ndax dama yag nab nab ci lolou hmm. lu jitt lolou ma ne fii nga né dama bëgg lolou ci si kar daanaka boo dee xataay it booba ku ñuy wax sëñ Bisiru Amar doomi señ May Mar la waaw booba fi li wër Mbàkke fi ko fa dàquree Ablaye Seck amu ci yàlla dogal na moom nan daa nab na bi ci xasaay di ci ànd moom booba sëñ Xaadim Gueye mi nga gis mhm. booba moom itam mi nab na bi bëgg bëgg Cheikh Abdoulaye Seck lool waaye demeegul nii mhm. booba demeegul nii ndax daan naan daje ci kuréel mhm. jëlee na ma fii itam ma awu ko kuréel mhm. lu yàgg mhm. bëri na daana boo gisee moom tudd ma lam lay njëkk a mooy lu ko tee doon jànkatu xarit laa xam laa xamul waaye loolu loolu la xamoon <laughs> ah, loolu waaye bëgg Cheikh Rafat rek moo moo ñu indi ci tur bi moo ñu bi moo bi sëñ sëñ Bass bi nga bi dooree tur yi waaw eh, comme da ngaa ñëw yor say daaj yoo xamante nii mm. xëy na ci daayira bi nga ko daan jëlee mm. waaye dem di ko modifier ba mu ne mujj nekk ab daaj mm-hmm. waaye booba eeru ma daal la doon wala eeru aw la doon daan naa doon aéro madda ndax bàyyi sëriñ damaa mënoon ay aéré maddaam lool te itam ñu ko xam ci madda lañu ko xam daan na yëkkati sax sikar mu mel ni air jàll yi ngay gis ak yëpp da daa yëkkati ndax moom wax ci lamiñam ne ma maa jàngal jibi juuf sikar bàyyi sëriñ nee na nga gis maa ko daa jiital sëñ Cheikh Fall kenn xamul lu doon moom wax ci lamiñam ne ma mhm. moom moo jiital jibi sama kanam mhm. xiir ma ci may benn benn nag ak mhm. di ànd ak ñoom tur wi amna na erreur sikar bi nga gis Baab Laa jay génne ko tam siw lol moy rijal bi moy rijal barab mam serain Fall lan nek diko di mm-hmm. may def suma diké dina majalé di lil mm-hmm. dama ko da majal di jox ak di kubus, kon dama ko daan tërbiyo dama ko daa tërbiyo ngir rek ngir tur rek mm-hmm. di beus xemem ko lol bëgg bis dajena fa Baab Laa Njaay keroog la jox erreur bi mm. booba da fekk ma ma lu melni bi ma tudd yàlla bi ma jàllañ ba di ko ni laa fekk baab laay indi ko addee di ko jox bàyyi sëñ ne bëri na ko air bi jox naa la ko addee mhm. ko fonk te teeku mhm. na ma gees na ma yow sa di ko gut xaaral ca kanam boobu ma nekk moom di ko bës mhm. sikar seet wax na ma ci lu bëri waaye mag ñi li ñu wuteeg ñoom ci sikar foofu sax laa bëgg a ñëw waaw eh, mag ñi bu njëkk niñ daan sikare nga xam ne daan dañ daan jooru waaw xam ne mën na ñëw bañ am sax rajo waaye day neex day yàgg te fi ñu daan téye sikar si daanaka léegi néewaa na nga gis ko ndax ñoom ñu dañ ko fa daan téye ba nga yaakaar ne duñ bàyyi duñ ko bàyyi mm, mm, mm, ndax loolu mooy neex-neex bi maanaam euh, sa digganteeg Baye Serigne Fall ci ak nan lan nga xam ci moom ci turu yàlla yi maanaam nan la daan sikkare ci loolu nga xamante ni nettali na ko wala nga mas koo gis wala nga mas koo dégg xam nga Baye Serigne mm-hmm. mooy li ma la bëgg a waxtaan li ma la bëgg a wax ci mag ñi li ñu wuteeg ñoom ñun ci sikkar <clears throat> mooy ñoom mm-hmm. ba ñaar dal leen mhm. mo jamono ji ñu sikkar jamono tan ñoo xam ne mhm. sikkar ci dong lañu saytu mhm. da xam nga ku neul señ Cheikh babu goro ko yar señ Cheikh Fall bëgg na tur yàlla bëgg no woo suñ ko man def lay tok seen biir da na def fu ci nit genn te te te foofu mu du fofu de lool dafa jafar jamono tollu ndax ki difé ñuy def légui jot googu nekkatu tuti ñom ndax jamono señ cheikh digal baax mi day wax na lu yag sopp lu yag dolliku jamono mo ag fofu na xam bëgg nañ tur wi ndax moom rek lañ am mhm. waaye jamonoy saytu ko nag saytu ko ba suñu daan saytoo mhm. loolu wax dëgg na ma ko bàyyi sañu waxee woon mhm. amul fi mu nii nga ba dañ laa masa nax sax muy cin lu neex tuddkat yàlla ya koy ñoo ko añee daanaka lu gën a tëdd la mbaa kanam atom sax bu ko dee jox ku tudd yàlla ci yéeg mm. ndax bëgg bëgg si karam bàyyi sañ nee na ma buñu si kar daana toog suñu biir si kar nañ ba tàyyi mu ne du foofu de du foofu sàngam la ak sàngam xam nga bo gisé si kar si boo gisee fi mu ñaan ba baye goor ji bari ci hmm lolu ko ci yalla fayé ndax air bi ñuy wax Sam Fall mhm. bul fàtte ne Sam du du sikar mhm. Sam ab dëkk la mhm. fa la joggé hmm bëkk dem lañ doon ñaanal sëñ Selbé Abgour juróom ñeen fukk euh, juróom ñeen fane barafu yi fa lañ fa lañ faan hmm ba dem lañ fa joggé ñew fi yalla ñu ko sama borom fayal hmm jot lañ ko ci yool bëpp hmm ku fa faan rek tur yalla nga fa dégg bët set ak nañ ko doon défé da nga né fi fi la dëkk hmm Babacar Thion moom ngay wax maa ngi ko siyaare baax ñoo bokk ne ca ci kër saak lépp. dinaa ñëwaat sax ci Baye Serigne Fall moom dinaa fi ñëwaat ndax dama bëgg ñu taxawlu fa baax a mhm. baax waaye eh, ñu lay gis keppaaru kër Serigne Cheikh Fall Baye Góor lu bëree bëri waaw Serigne Cheikh Ndigal seen diggante ñëpp xam nañ ko mu mel ne moom tamit am na lu mu def ci tur ci turu yàlla yi am na tamit lu mu def ci sikarkat yi sa diggante ak moom ak turu yàlla yi ñaari ñaari sikarkat la la bëgg a ndil mhm. daa xam lu bàyyam këree moom lu mu këree moom mhm. waaw bàyyam fi ne boo dañoo ay Baay Faal nga jëkk ñene nan leen sam mhm. doon dox wuti saam dañuy yëkkati dañuy yëkkati sikkar deg daj te sam ab dëkk la du sikkar mhm. la tax bo ne nan sam nak xel mi dem ci sikkar loolaa mat a xam loolaa mat a xam moy la lañ ko fayee mooy ñoom mhm. eeri sikkar bi ngeen xam moy muy muy deg daj bi ñuy wax diko diko di ko yëkkati dongo ya ko ya ko ancien dongo ya ko mënoon day bay ci bàyyi sëriñ bàyyi jib ñi ngay wax dañ ay am te señ bi mom sam bo ne borom sam muy señ Cheikh Baay Buur ñu dëkk saam dëkk saam moo tax na kuréel ba ko njëkkoon a man nag ki sopp gi mm-hmm. Mm-hmm. moo indi na leen saam gi bu leen saam ñu xam saam faal ba la wax mm-hmm. ñu yëkkati ko muy saam faal loolu moo waral ñu naan ñaan ñaan ñaan saam faal waaye saam ab dëkk la waaye du sikar ña koo dëkkee ñooy sikarkat ya loolaa tax moo loolaa ci indi saam ba foo ko demee ci àddina boo ne leen saam ñu ne acca ne neen yëkkati ngir mu doon mu doon saam faal suñ seen mi nag bokk na ko ñu ñi nàmpatal ci tur yàlla ngeen no xamee muy wànd ki xiin Hmm, mhm. lola mom moom yaatu gi ni moko ci indi mom degna ko batay mo wax ci kadum ne mhm. bo fekke sa baye samp ak ker mhm. da nga fexe samp go xamni ne leg bu sa dom dikkee bu la lee sama keroog mam la man na lee sama keroog bàyya <laughs> bi mu dikkee xam ne sikar àgg na foo ne daayira yi dafa xew moy wax de te daayira goor ñaa jigéen ñoo ci ëpp ci lañu ñu mo wax ne way ndënd mi day woote su wootee amna lu muy wax amna lu muy wax ndax bul fàtte ne ndënd mii nga ne moom la ñuy tëggee sabar gi ngay moytu moom moom lañ foor di ko tëggi tur yàlla yi def na yaa ci wute su ma la ko doon misaal dama lay wax ne ciment bu ñu tabax ci ci ci jàkka tabaxewaat ko ci wanag boo dem ca nag da ngay simi say daal da ngay sol say daal waaye boo ñëw ci jàkka da ngay simi say daal defe nii rek ci wute ñoo ci wute loolu lépp benn la ndënd benn lay doon waaye bu ndënd mi woote ba ñëw nag ñay def la ñuy def hmm. foofu la foofu la ba baax baax ga am hmm. ak ñàkk gaa baax mooy tax ki col di ko def war koo sàmm hmm. ba mu baroon ru ba mu baroon roog la ñuy moytu. ndax mën na ko caa indi. sëñ sëñ bas daguma la. waaw euh, dégg naa ci nettali. ñu ne am Cheikh Ibrahima mos nañ koo laaj xiin yi lu ko waral. waaw mu ne dama des na tuuti ci kanam ndaw ñi kenn mënatu leen a waar waaye da tëgg ba ñëw nga wax leen li nga leen bëgg a wax mooy léegi nit ñi. Mm-hmm. la ngay dégg yow la ngay dégg ak ñoom la ñuy wax boo ñëwee lan nga fay dégg ak lan nga fay jëriñoo. xam nga Cheikh Ibrahima ci jamonoom. Mm-hmm. ñu bëri danaan la tëgg xiin di sikar mm-hmm. bari na histoire mhm. so gisee koo laaj man na ko laaj dama ci xam lu bari ci mhm. jamonoom mhm. tabala mo amone tabala loolu nak mag mo fekkee jotaay ba yalla dimbal na ma ñamanante ak mom ba ko koy nettalaat ba ko ci mom la ko jëlee ba ko netlat boobu mag bay seen ñaan mu diko ko wax tabal ak mam Serigne Fall go nga dañ teg tëgg jëf jël ne daam bis ñu gam kess ba noppi ñu sàjj tabala gi di di yëngu ñum seen biir Mam Cheikh ñëw ba tolok tolok buntu bi ku ñaa ah. maam yank ci la dal ah. bi mu ne tel tuddu ko ah. mu ne ko faal mu ne ko ana def non mu dañ lay sant rek faal ko de tabala gi di dem bi mu dikkee carrière ci lañ ko dolli suñ mu saafal dolli ko ba mi ñett ñu di ko ñi dem carrière bu nappi wéerat ko sëñ saafal nek na fi ba jógee fi dajale wut jigéen ñi goor ñi ñuy di loolu dedet bi sëñ Cheikh mi dikkee nak mhm. ci lako sa bam dogal mu samp ko. mu samp ko daal wax ne. Mhm. lepp loy wuti. Mhm. soko soko ñame ci tur yalla xane mo moo gën a neex. wuti rek ci lu bax ne boko ñame ci tur yalla xane mo moo neex. ndegam ndënd mi nak day woote. te boko ko la ci la xumbu bu xumbo nak nga tuddu leen yalla bu yalla mangé seen xol rek bu yag duñu bëgg ku dul ci loolu la seen jublu da defar na ci bo gisee ndaw ñu fi tonni toll nii. li fi tonni moy nii sékkat doonub sékkat rek ah. dara indi ko amna ci nak ay sew-sew yu bari mhm. yo xamne jamna jamono mang koy leral mhm. maa leral na dafa am ki roy mhm. la roy ak lam ci dolli bokut ak ki nga xamne mom lañu roy lako ci ca engagé moom da ci am part bu mak ndax da wara wax li liñ ko reey lan la lan la len ko tuddu yalla amuti ci tudd tuddu yalla desu ko foyé tu yalla kenn du ko fecc itam desu ko dukkat te fecc du li ñu nuru bokkuñu suñ ko dee fecc rek xamal né buñ ko dee fecc rek rax na leen. ilaha illallah la. Mhm. muhammadur rasulullah. Mhm. jant bo ci tuddé Cheikh Rafal ko ca tek da nga bëgg ñu ak ñambar ci mam Cheikh agul Cheikh Rafal fi. ni dina dina tudd yalla ba ba kañ sëriñam. Mhm. tudd ko fekk na koy fatali ngir maam Cheikh Rafal rek turu yalla ma ngi dañ ci da waxante. am na ñu xaregal réglé. ba sey ma mbokum talib mu ñax mam Ada Kase. moo daan de ma han majali màjjal mi day neex loolu ñu daan ko ñu daan ko yàkkamte di ko gis dañ ci daa tooñante suñ ko bu bu bu bu màjjale bañ bañ bëgg a xam fu mu toll mhm. la ñuy jékki-jékki toog fen toog mhm. daal di jékki bu ñu jékki-jékki toog rek kenn daat yëkkati mhm. maam baax la la ah, loolu mooy air bi. mooy loolu indi air bi ñoom dañ wax ci biir. dañ daan waxtaan seen biir. Hmm. Modou Yadjé mii. bi mu dee ko wàcce. lu bëri Modou Yadjé di toog bu ñu ko daal di di mën da nga naan hmm. nga doon eh. aw loolu daal dañ lu bëgg a wax dañ ci biir si kër. ba sëñ ma mën a loolu loolu jotut jotut jotut ndaw ñi xam ko. dañ ko war a xam. xam li daaj bi daaj bi. waaw bi ñu ci bëree bëri xamuñu. déedéet li nga ciy li nga ciy njàmba wax nii. Hmm. ñu ci bëri kon njàmbaas ci sikar la bokk. njàmbaas ci sikar bokk mag ñi. Hmm. Hmm. parce que ne bi maam Serigne Fall demee. dañoo daje sëñ Moustapha Fall neem bu dongee dañ daa sikar baag ñaa ñuy bërxal. naan ba dem na. benn bi sëñ Moussa Fall dégg leen ci bërëxal bi bërëxalu si kar de dajaleen bañ delloo mën leen aspect dem na waaye saxaaru këriñ ngay fi des àgg foo tëy yër nag moo gën tardé ñu dem ba miin ko ndax ku ku ku si yarafal tarbiya bala ngaa gëm kenn na jafe nde miin Cheikh Moussa mu mat li mu doon ci lañ lijjantee nag nga dégg leen am na air bu ñu daa yëkkati naan kon kanaama yaa koy mujjee am di sax musawa kun kana ma yaa koy mujj ah, la la la la la la la la la faal la la. loolu daa mel bàyyi si ni Paalo. bàyyi si moom lay wax ni moom wax lii. bi ñu ñëwee sëñ Moussa nag. Mhm. ñuy yëkkati air boobu. Mhm. di ko yëkkatilee sëñ bi air bi nee na ma yëkkati nañ ko fii ci lu toog nawet mu taw. fii ci këru Mbacke gi bàyyi sëñ bi. ñaa ñu yëkkati ko. Mhm. am di Cheikh Moustapha ji ñu di ko ci dugal na ko fi jaay ak baax mbaa nga jaay ab taar. am di Cheikh Moustapha di ko ci dugal di ci dugal air bii. bi Cheikh Moustapha demee loolu dalaat na sëñ Sall Baab Góor. dana mag ñi di si di léegi naan ko fi jaay baax mbaa nga jaay taar am di saa sori. Oh. sëñ Cheikh nag ci si si rek. ne nag ci sikkat rek ñoom rek. te loolu ñoom dañ ko daan dégg. ci sikkat lañ ko dugal sax bu ñu ko bëggee wax sëñ bi amul lenn ñoo wax du génn te ba pare bu ñu mën nañoo téyaat seen air. dañuy téye air ba ba bi. Mhm. ci yenn wax liñ bëgg a wax lépp ci lañu waxtaan bu ñu dee wootante moo hmm. bi kii di fa nee ma wax na ba taay yónnee na ba taay na dong nañ génn sama tur yi ñu dugal ci ci am na bis kilifa gu baax mhm. wax na ko li nga ci daj faal ku ko ku ko dañ ca law ba sax bu maalaw yettee may la njur fokk ñu tudd la ci. néeg la waaw ndax ni mu daan def. waaw bàyyi sëñ nee ma. Mhm. sëñ Cheikh bis am na ngan gun dem. Mhm. di si kër. Mhm. nee na damaa man maa ko laaj na ko bàyyi ji kañ ngeen yëg ne. sëñ Cheikh reef na ci moom tur yàlla. mu ne ma sëñ Cheikh Fall de kenn xamul lu mu doon. te naa la xamal yaar ku munta dellu sëñ Cheikh Fall mu a indiwaat si ko si jibi kaw suuf. ndax jibi sikkarut sikkaru ma sëñ Cheikh doon sikkar moom sax dégg naa ko si daan du man kenn sëñ Cheikh doon sikkar na ne bis day mhm. bi nee belal anag suna naan sikkar soo xam ne gis naa sëñ bi mhm. am lu mu def jox ko mu naan mhm. bu na rajo yi léegi dama naan la kii daa soppi baat bi def ko mu barib éku nee na am na fu mu doon sikkar moom dañoo sikkar sëñ bi yónnee mat ñaari bu daaru faal sax ñaari yoon daal ne nee leen nañ sikkar bu sëggee wax ko jibi jibi jibi ne waaw bu yëkkataatee ñu yónnaat ndaw li ñaat na ko sëñ bi ne ngeen sikkar bàyyi sëñ ne ko jibi nee na boo dee ne ko moom mooy sikkar na ko teg fu ko neex <laughs> mais bi ndikki muur la ngaram ngaram a banslaat mu jóg mu ne ah yaakaar naa foofu la de xam nga kon kooka am loo xam mi ngi ci poosam moo ko téye waaye sëñ Bass yow da mas nga fekkee ñenn ci ci ci ñooñu waaw seen seen seen seen seen kuréel waaw mhm. fekk naa itam kuréelu bàyyi ba bàyyi sëriñ ba tàyyi moom bàyyi sëriñ fekk naa Baye Maxat Baye Maxat Badiane dañ koy dañ koy taxawlu ci Baye Serigne bu baax a baax naa Baye Maxat Badiane. Mm-hmm. Baye Dieng. Mm-hmm. ñii moom ku ci nekk. Mm-hmm. fekk naa sa sa tur yàlla ba tàyyi. waaye Baye sëriñ daa doon koo xam ne moom laa marqué. defoon ko nii moom. donte xam naa ñii ñu xam ma lool. ñoom la lay ci mag ñooñu bu ma daje ba waxtaan nii. yow doo ci jariñu yow. waaw la ñu waxtaanee doo ko bëgg a dégg. dañ mel dañ lay dàq. dañu waxtaan loo xam naan ñokke ne lii gone du ko dig daw dem ñu ne seet leneen ba maa nekk xel ko ba ma wutal ndox lépp ba toog seen wet damay gaaw dem mbaa ma mel ni ko nelaw sax ndax bàyyi leen seen waxtaan waaye ku ci nekk ñoom bàyyi seen dem na ba nga xam ne am na bis bi muy sikkar si jóge këram ñëw saam fall peñu saam sikkar si ajuma ji rek képp saret lañ ko teg ndax tële waaw bu nga der da nga yaakaar ne moom moo ëpp doole suñu der am na bis ñu màggal soxna jee fall fii mu ñëw laajte ma ñu ne ko parce que dafa siburu ci laa xam mhm. ñi am na leen lu yalla def ci ñom lu lu lu wuuteeg ñun la ñuy gis wuuteeg ñun la ñuy gis waaw. hôpital laa jógee ñu pikir ma ba mu ñëw tëdd. Mhm. mu yónnee daal nañ ko woo mu ñëw. Mhm. tu yalla ko fer mo koy fajj ñu may ma loxo ma sol mbubu ñew ma ñew mu jox ma micro bi ma jël micro bi di ben ben dama ñak ñu mi génnee. dafa mel ne dañ ma jamono ak dara nga diko sék di tek né ma di ko ma man damay seen li ñuy sék diko tek né ba mu wir pelek ci biir sécurité si. amna ko ñu wax Baye Ndour taalibe Sëñ Fallu Fall Fatikan la. yalla nako sama borom dolli dolli yemande yuuxu na fa ba tatafu ma ak jaj ci tur yàlla woowu kene ma tagok ma ma tagok si bourse si bàyyi ma eh ma ko li mo mo la tawat ta moo lay ta mo lay fajj hmm. buma ma nak nag na ngeen ko nak nga ma ko defal li yem ma ba mi génn dina fekkon na ma am ma demoon damaa ñëw yem ma ci amee mu def ma al mitt ñu bari dapp na ne li ma taxa a sama sogo bëgguma ko bëggon waaye wax ju ma waxon la wax ju ma waxon la te loolu waruma waruma ko na fekk te da ngeen waxtaan ci sikar lu bari lu bari amna lu bari nu muy dundee sikar mom ko digal sama magati duggate yàlla yii mhm. koo ci gisee laaj ko mhm. bu buñ ma béttut du ma leen nuyoo loxo kese mhm. du ma bokk ñoom benn programme benn ba jim caa doon dara loolu ñoom ñoo cay doon dara lalukaay bu ma fekkee ñoo cay toog bu dee benn ñoom laa koy jox man pare naa ci dootuma toog bàyyi moo ma ne woon noo def ci tur yi na ko def ñu la mag ci tur yi ko def la mag moo taxit de fi loolu la ma waxoon loolu la ma digaloon ne ma day jiital nit ñi moom wallaahi ne ma bul doon daanaan mukk de mm-hmm. tur bi bu doon daanaan mm-hmm. ma ko bàyyi sëñ lu daanaan ma man daanaan mooy koy xew di xew yi da nga doon tudd ko yàlla rek fekk yàlla xew xew la ñuy déglu waaw loolu rek la ma wax nag fekk yàlla xew ngay xew ma ne ko loolu luy différence bi mu ne ma mm-hmm. soo doon tudd ko yàlla def ko ngir yàlla fan jàpp na fa nga ko tëlee fan lay commencé lay teral moom di jëw yow kaw ah. waaye boo demee nag fa sa ndaanaan yem fa la teraanga jëm léegi nag dafa mel na ndaanaandu bi sax moo ciy gën a kii ndax boo xoolee. Mhm. Eh, sëñ Bass li muy nettali ci turu bi ak diggante ba Baye Serigne Fall. Mhm. néewaat na loolu nga dégg ku la ko nettali ci dund ak dund dund gi nga dund ak Baye Serigne Fall. ndax loolu noonu sax mënees na mënees nañ cee taxaw mu nekk émission bu lëmm. waaye nag comme émission bi léeg-léeg ñu laalaale ci yeneen côté. bu fekkoon ne dañoo dañoo ñëw nii rek. Mm-hmm. tey te di waxtaan nii. Mm-hmm. su boobaa du xaj sax ci. du ci xaj yaakaar naa ko de waaye xam naa ne. Mm-hmm. Euh, ku ci mel ne ñoom Baye Dieng moom. waaw ñoom Baye Jibi Diouf. ñoom amoon nga ak ñoom relation wala dañ leen a xamoon noonu rek. Baye Jibi miinu ma ko. ndax ginnaaw sëñ Cheikh Fall. bu fa defee atit at ma génn ko. ndax bàyyi sëñ nee na ma ba ma daan tooñ sa daan ma ji bi daa xaru. daa xaru waaw. ma ne ko lu tax ma ne ma ci bi ñu denc sëriñ bi. moo ñaan na ngan nga sax maa ko sikkare. Eh. yàlla bu maraw. si daan nañu wax ne na ma dëggaat sax. njaareem waaye yàggu ci. daa ax ah, bu ma sikkaree damay wor. est-ce que mooy daaj bi ñuy wax ñaanu suñu Cheikh Fall. waaw ñuy wax ñaan wax ñaanu suñu Cheikh Fall moo ko si mm-hmm. ñaanu suñu Cheikh bi bis jël si la sikkar. bin ñu denc sëñ bi ba ko ko ñaanle daa nëpp sa bu lo dar lañ ko jox wala lu muy mos mm-hmm. bu jógee ndax ñaaw sëñ Saafaal mm-hmm. ba sëñ dafa ne sikkat sikkar sa daggut mm-hmm. bi kurel demee bi dañuy sikkat ba son bu ñu waré teud bi rofu jëm suba bu ñu xëyee bii roofu ñu nekk bi rofu ñu añ bi rofu ñu kii sikkar da daggut te bu ci nekk jibi daj dugg sikkar su ci ne si naa jibril daj dugg kooku de kon moom moom moom lépp malayka la moom malayka la bu nga xam si ba wax na ma keroog ñaan suñu saal bi noppee la ne tey laay mujj sikkar ndax ne ma am na sarax sama njaam duggaat na fa day daa dugg génnaat wax ne ab moo àggale damay war moom dafa jaayante ak dem dafa jaayante ak dem te boobu noonu mhm. fii bay nab nabi ci ci ci kas ña ngi ci daa ja mhm. moo tax miinante gi amul mhm. waaye ginnaaw moom lu fi jaaral miin nañ ko moom ndax ci diggante loolu ci lañu xam te xam nañ ci itam lu bëri loo xam ne bàyyi sëñ moom nekk lan te ànd ak moom dan na koy dan na koy nettali ñu di ko dégg mm-hmm. ba Baye Diop mii dem bu yàggu rek yàlla na ko sama borom dolli ay leer ak i ngërëm barki sëñ Sall Baye Góor lu mm-hmm. dañ ko dañ ko dañ ñu ko daan nettali moom ñu toog ak dañ ci yokk pëseef mm-hmm. waaye ñoom li ñu wute ak ñoom ci tur yàlla mooy li ma la waxoon yàlla képp tax ko def sëñ Bass la ñuy profité lan ngay soññu ndaw ñi nga xam ne ñu ngi ci tur yi te yow mii nga am loolu leen ci gën a xam ndax dund nga ak koo xam ne dund na tur yàlla yooyu ñëpp xam ko di ko roy ba léegi nii bàyyi Serigne Fall yan kaddu nga leni soñu ngir ñu gën ci mëna buñ ci bëggé doon dara day dañ ko def ngir yàlla. ta bañ ko def ngir àddina. ta wañi folklore bi. surtout. ndax bërna luñ duggal ci sa kër loo xam dañ ko jëlé ci way kadé rek royatuñ leen ñu dem di leen royi. waye amu ci. loolu itam li def moy ki lay lo ak lim lay lo bu fekk dafa am ko xam dafa am aw xewu toon ni na ne munu ca indi lu mel musique te bëgg na mu xumb dong mu dem wooyu kër ndënd di sikkar ngir xumb mm-hmm. loolu sikkar amatul xumbal ko aw xewam moo fa am ndax sikkar du ñu déglu la dafa ñàkk pexe du ñu déglu la mm-hmm. kooku ka muy woo mm-hmm. su bàyyul xel moom lam doon bu ñëwee dina ko fekk ci loo xam ne bokkut ak lañ koy def loo waaye su xamee boppam nag te xam ne li muy li muy tudd moo gën lépp luy bàyyi ko ci làmmiñ ndax laa ilaaha illallaah moo gën ci nit lépp luy bàyyi ko ci làmmiñ waaye ban laa ilaaha illallaah la wax mooy bi ñu def te yàlla képp tax tudd ko bi yàlla bàyyi sëñ nee na ma mhm. tur yàlla day mel ni xëcc goo teg mhm. ci weñ gu ñuul di ko namm loo gën di namm lu weex di gën di génn neen tur yàlla noonu la def xol mhm. da koy namm ba mu weex taal neenam foo fekk kuy tudd yàlla ñun tur ko bi yàlla la te xol bi dara ci iñaan ne ca moo ko tudd waaye tur wuyoogu moom ba mu jeex tàkk su ko wuyoo rek loolu dootu ne moom dootul iñaan du rëy fii ne koo gis ñu ne tudd ko bi yàlla mu rëy da caa ne waaye tur yàlla wuysee ko. wuysee ko bu ko wuysee du rëy. du nay. te jàpp na ni yi ñuy gis rek mooy wuysi gi mooy. waaw li ñu jàpp ne mooy wuysi gi daa am leneen lu gën a foor. day am lu ñuy wax xew. xew waaw mooy ne ci koñ. waa koñ ba foorise la. jiital la. nga xew. te xamoo ne fi nga xewee am na ko fi xewoon koo xamul. am na ko woon sikar ba dem. kenn déggatu ko am na ko ne fi. tëlee nako ko kenn déggatu ko ñaari pang sa kaw fokk ben nañ la ci yow booba loolu xel rek do demem xel digënté bi ngay xew la war ci yow moy nga xam li nga doon lan la xamé ko ca magé ben fan sax dang ko jox war jox ko war ja ndax war dafa bokk ci li ñëwé tuddu ko def yalla bi ñom dañu bëggënté won ñom mag ni ba paré di lanté lante kenn ku ne sa morom mo la gënal sa bopp doo xëcc da jëmé sa jëmé sa bop fi né fi né loolu lima ci léral suñu sel bi dafa am ko ma sax nako diw mu ko faal mu ne ko neex baat mhm. ak bëri loy sikari amul solo mhm. lem solo moy li ngay wax nay deug li wax nay deug waaw sen sabab go lo wax ne lem solo moy li nga wax deug <laughs> la ilaha ta lum lo wax ci sikkar ca la bokk ndax li nga wax bu dee dëgg rek mhm. loy lo fi gën ne ñu ko gën xam ci yow ñu ko gën xam ci yow ndax nun leen tur yalla defal fekkuñu ko suñu kër bàyyi ndax da nga genn nit gis la fokk mbaxnam nuyu la ya gëna xam ne do señ bi yow yaa ko gën a xam danga da nga ñu lalt ak lal ko baax jox la nga toog mu nangoo toog ci suuf yaa gën a xam ne kii jéblu coo yaakaaru la tudd yàlla gi nga tudd yàlla moom la bëgg ci sa xol bëgg yàlla moo ko bàyyi moo ko bàyyi ci yow boo ci xamee loolu delloo koor ma ji yow bu mu la gën a bëgg yàlla delloo koor ma ji jërëjëf émission bi sax jeex a waxtaane yëpp xajut ci da waaw yaakaar naa ko waaye bala ñoo tëj émission bi mm. dinañ dinañ sa digganteeg daayira Zikroulahi bi mu sëñ Maam Cheikh mm. daayira bi naaw tànne ma ci ay cadre rek yoo xamante ni di ko dégg. bëgg naa lool. Mm-hmm. ci laaj boobu nga ma laaj sax ndax. sëñ Cheikh Jëmb yal na ko sama borom gën sàmm te aaral na ko. kenn xamul lu mu doon. damay wax ne. Mm-hmm. lu na jaar na fi. Mm-hmm. waaye dañ see jëm jaaxal na góor yàlla yi de. Eh, kay sëñ bi. Cheikh na ko bu yàgg waaye bi ñëwee itam. wa wane wane na baax na man mii lañ doon wax. maa yeesalaat ngir mi. te ngir ko moomut doo ko yeesalaat. mom ngir tax mu diko ko mu jaddid la daare bi ci mom la saso mhm. daare bi xidmatu mam senegal bobu tam liko undon ko undoon mhm. ngi dañ do waxtan ci nañ fexé ba ni jang xaar yi amé moy bu nafé mhm. di dajé seen bir ba xamanté nañ ko fexé def ñun tudd ko yi ndax si kër si bëri na léegi ñoo nañ ko def ngir xamanté kenn ko né xam sa morom ndax bass dafa gaaw jax ci ay nit ni day dugg ci bass morom mo dugg ci bass ñu def ké no xamné ki mëna jagg ci bopam ba ñom sax du du ci bass lu bëri day xew ci ñom loolu di xew nag ci baas yi mhm. Mhm. ñu bañ mu dal nu mhm. ndax am na lu mu commencé yàq ci tur wi da nga gis turkat yoo xam ni baas baas a tax xamantewun ñu baas tax da nga doon nuyoo waaye bi ñu dajal na ba ñu fa sëñ see jëmm nag loolu dong ñëkkati woon sëñ bi moo na ngeen boole liggéeyal maam Seex Fall ci tur wi tuddee naa ne xidmatu maam Seex Fall ñu ne ah kii nag yemale wuñ ci tudd yàlla dong daa boole dañu liggéeyloo kon sëñ <laughs> maam Seex moom Cheikh Sërif Assane moom maam Seex Fall yéen a ko sëñ moom la sëñ bi jiital suñu kanam ak sëñ Cheikh Ndoye bu dee fii ci Touba sëñ Cheikh Ndoye moo jiite daari bi waaye mm-hmm. daari fu mu mën a nekk itam sëñ Maam Cheikh moom moo jiite ñëpp moo jiite jërëjëf sëñ Bass <laughs> jërëjëf xam naa beneen yoon dañuy def spécial ci daayira bi incha allah tur daayira bi sa ak sëñ euh, sëñ Bass Niass mm-hmm. spécial incha allah lu ci bëree bëree bëri moom waaw waaw xam naa benn daaj boo xamante nii rek dañ koy tëjee jotaay bi bu ko a ñaanalante laa ilaaha illallaah laa ilaaha laa ilaaha illallaah oh. laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah oh. bay góor ñi faal kamal nga laa ilaaha illallaah laa ilaaha oh. illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah am na Mustafa kamal nga laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa naa inna laa. jërëjëf jërëjëf addee Baye Serigne Fall jërëjëf addee Baye Serigne Fall boobu miin ngeen ko bu baax a baax seen bas mii tey moom lañ dalaloon tey bëggoon nañ ñu gën a waxtaan bu baax a baax mbokk seetaan mm-hmm. Mm-hmm. ndax mbokk yi buñ dañoo dañuy dund tur yi dëgg la fi ne buñ gisee ku ci wax rek dañuy mm-hmm. dañuy am mbégte bu baax a baax amoon nañ yéene gën a yaatal bu baax a baax waaye comme jot gi mo amul ndax yeen xam ngeen ne lepp lu ngeen bëgg rek ci la ñuy dox la deug ay seigne sëñ Bass mii dafa nek ci ay ndigal yo xamanteni mm-hmm. tay ji mm-hmm. manam pour mu tok sax jafe ñoko tok lo toogloo ah. ñu koy sant bu baax di ko ci ah. jappandal gi ak OF gi mu wax OF gi mu am ba nangul ñu li nga mm-hmm. xamanteni mom lañ defal xam naa dañ ko gëna yaatal ay yenen jamono di ñaan bu baax suñu borom yàgg amin barke maam Cheikh di ñaanal bu baax tamit Serigne Cheikh jëm Fall amin amin eh, di sa di sa lepp di sa lepp wallahi wallahi lepp ci mom wallahi wallahi di ziar baax tamit tay ñaan Serigne Cheikh Ndigal Fall tamit tarkal képp ku ko gis ci wet gi tarkal eh, tarkal ak mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp ak mboolem taalibe doon seetaan li moo nekkoon seen émission Zikroulah di siyaar bu baax sëñ Abdou Ndiaye bi nga xam ne bi di ko sant baa di ko gërëm ci njàppandal gi ak woyof gi ak li nga baax mboolem ñu doon seetaan seen seen jës bu murit kon ñu ànd kon ñu dem sëñ Touba bàyyi leen ak sëñ Touba sëñ Jib Daawati bi maa faaxal seen ni maa faaxal ko seen